ay junney sëriñ saaliw sëriñ tubaak maam jaara sëriñ abdulaat maam cheikh lamp baabul muridiina bay nga sawaar na fu ne cun ba as sëriñ saaliw mbàkke sangam ba cant gi bu siiwee nan ka delloo cheikh mu maam bambi jaam bay nga sawaar néew na cundum daan fanaan siplal tal woon lekk ki naan xanaa lum am togg jox mbindeefu yàlla yi sante ko sëriñ saaliw sëriñ tuuba bay nga sawaa jinnu na jung-jung yi mbooloo mi ñëw wax na sa kaw ñépp déglu ma wax leen sëriñ saaliw mbàkke sangam ba bilaay sa jaanu wàcc na bay nga sawaa ñépp la leeroon ni amuloo maas ndax sëriñ saaliw sa sang ba amul maas ñépp xamoon ni doo maas ndax sëriñ saaliw sa sang ba amul maas weeru koor wii mu dogal ngën a bunu la àdduna maase naan nit yàlla dem naa bay nga sa ramadaan la def cuun sekere ba luy mbindéef cuun nu mastatinin ba Cheikh Saal décidé yóbbu laala la def cuun sekere ba ba Cheikh Saal décidé yóbbu laala cuun sekere ba ba Cheikh Saal facun sekere bali minde facun ima fanene baze hazan Universal Ali ya musul sa sapam Subhanahu wa ta'ala Kadef bis bunyi pemasena Nidi anala kunana Sunu Ramadan la def Facun sekere bali minde facun ima fanene baze hazan Sohna Ibrahima bokkum yow Mansour la sa sapon subhaana wa taala ka def bis ba ñëpp maase naa nitu yàlla nam bu naana shahru Ramadan la def cuun sa kër ba luy mindee cuun ngeen mas fa la dis ne oh. jooje dum kam ma sa faate cuun jàmm sëriñ sàllaxu naana sëru Ramadan la def cuun sa kër ba luy mindee cuun ngeen mas fa demee ba Cheikh Sall décidé yoo oh. gërëm Sëñ Bamba na mu naan ma ñaan la ba may wàcc Bordeaux takkusaan di set baawa cheru Ramadan la def cuun sa ba luy mbindeef cuun ñu mas a dem bis ba Cheikh Sall Sigi Saliou Karim meri ñàkk Ivraak Pesaak Statan Island Paris ñan naa gan gu mel koy jëliti wi naana teru ramadaan la def cuun sa kër mi def cuun du na ba Cheikh Sarr desine yóbbu la Aliou Cissé statan ay lan parik ñan naa gan bu mel nii fuñ koy jëliti wi naana ramadan la def cuun sa kër ba luy mbindee fi cuun ma sànni bis ba Cheikh Sall décidé yow Abakar Diouf mairie ñak Ibrahima Pesaak Staten Island Paris injan naa gan gu mel nii fuñ koy jëlee ci iwe naana suru ramadan la def cuun sa kër ba luy mbindee fi cuun ma sànni bis ba Cheikh Sall décidé yow maam Amin Ndar géej mi na say tera ngay ñaanu Sëriñ Tuubaa ba Gànjul nee ñu yaa daa Dagana ba biir Mbumbaawa ceru Ramadan la def cuun sa kër ba luy mi def cuun dem na fàtte mis la Seex Saar décidé yóbbu la ñun Bambi yàlla wat si alxuraan cantaraw nga jëf ko daan yàlla war si alxuraan cantara nga jëf ko daan bécco yàlla war na artiste yàlla war si alxuraan cantara nga jëf ko daan yàlla nga jëf ko daan woote wax ak waa yaa araw ku mu doon ba sëñ tubaawa cuun woote wax ak waa yaa araw ku mu doon ba sëñ barke yàlla wat si alxuraan cant raw nga jëf ko daan moo tee wax ak waa ne yaa raw ku mu fa sëñ Tuubaa baay yàlla wat si alxuraan cuun cant raw nga jëf ko daan cuun moo tee wax ne yaa raw ku mu fa sëñ Tuubaa sëriñ Saliou xel kom la wootee ay ndaw wuyu li nga yar si ndaw bari nañu doonu leen ñaar cax beeg sëñ benn laala sëru Ramadan la de cuun sa bambi do yàqule wóor na law cuun na bilaay walaay danga laa def sa ndam day taxol ba aljanaana ceru ramadaan la def fa cuun sa kër ba luy mindee fa Moussa ne nañu Sëriñ Muntaxa sa jëf rafet na te see la def dalu neex sa wóolare ba Sëriñ Saliou Mbacké boole laala jalu ramadan la def cuun sa kër ba luy mindee fa cuun man fa de bés ba Cheikh Sall décidé yo xalifatul am Sëriñ Muntaxa sa jëf rafet na te sell la def dalu neex sa wóolare ba Sëriñ Saliou Mbacké boole laala